dogal yi ñu jël ci conseil interministériel bi euh, du dogal yoo xam ne dañuy jàpp ne euh, maanaam gëm sa bopp moo ko bàyyele boppam euh, programme mu gëm sa bopp waa gëm sa bopp moomuñu ko programme bu Sénégal la ni mu amee luy lijjanti wàllu transport noonu la programme mu gëm sa bopp amee luy lijjanti wàllu njàng wàllu wér-gi-yaram wàllu xëyu ndaw ñi wàllu euh, mécaniciens yi wàllu ouvrier yi maanaam les ouvrier les artisans en général kon gouvernement bu Sénégal bu fekkee ne am na lu mu jëlee ci programme bu gëm sa bopp loolu dañu koy sant suñu borom te xam ne liggéey la boo xam ne dañu ko war a yaatal alors lu jëm nag ci décision wala mesure yi ñu annoncé ci wàllu transport euh, ñun ci gëm sa bopp nañu ko xalaate moo am solo parce que jàpp nañ ne waxtaan moo war a jiitu planifier ko tëral ko ci temps ba nga xamee ne kenn du ci loru waaye li ñu ci war a jëf moom kenn du tere ñu jëf ko li nga xam ne nag jàpp nañ ne mooy li jiitu te Macky sàll waroon jël décision boobu mooy gorom Mansour Faye mu jëli ko ci bopp transport bu Sénégal parce que bu ñu demee ba pour régler transport bi faw ñu organiser conseil interministériel xalaat yi ci génn ngir doxal euh, wàllu transport ça veut dire tout simplement que ñu teg ca bopp ba mënut a jëfe la ñu ko sant noonu la ñu dàqe woon Ablaye Diouf Sarr ci euh, onze bébé yi faatu woon ca Tivaouane donc bi daanaka mat na presque cinquante nit yu ci génn àdduna euh, le seul et unique responsable c'est le ministre du transport et je crois que Macky Sall daf ko war a bokk ci ñi muy dàq.